rahmatullah mbokk taalibe yi mbokk jullit yi danaa bu ñu leen nuyoo siyaare leen bis bu tedd bu mag bi nga xam ne bisu xam-xam la bisu borom xam-xam la bis la boo xam ne ñu ngi bokk ci bis yi nga xam ne dañ ci eggale lenn ci biir seen tubaab xam ngeen ne seen tubaab bokkoon na ci ay mérite ba taxawal ak jàng bokkoon na ci ay mébétam ba ci ay mébétu yu ñetti mébét yooyu nag tey benn bii nga xam ni mooy lu jëm ci wàllu xam-xam mu ñaanoon yàlla fii ci Touba te may na defal na ko fi jàngukaay boo xam ne bu ñëwee li nga mooy bàyyi ko ci yeneen jàngukaay moom du ci boobu yi nga xam ne mooy bàyyi ci yeneen jàngukaay muy jàng ba noppi wëlbati am yeneen gis-gis ba mën a lor sa bopp mën lor beneen Euh, réer gi nga xam ne mooy tax nit ki du xam boroomam du xam boppam du xam lenn jàngukaay boobu moo ko fiy jëlee wal kamadu njàqare yi nga xam ne moom la nit ñi am jàng ba noppi wëlbati ko am ay sikki sàkk yu jeex di dem bay sikki sàkk yàlla subhaanahu wa taala di sikki sàkk valeur yi nga xam ne moom la sa réew am moom la say mag am mu ne seen jubaa mu ne jàngukaay boobu bu dikkee ci loolu lay dañ loolu nee na ba mu koy wax booba kenn xalaatugul sax ne loolu yi bis bi dana am waaye moom waxam moom suba jant dana am rek incha allah ñooy moo tax tey jii ñu teg suñu bët ci lii nga xam ne moom la ko Cheikh Mouhamadul Mourtada di egg Mountakha di eggale xam ngeen ni Cheikh Mouhamadul Mourtada wax na lépp leeral na bis bi ay yoon discours bi mu njëkk a def bi mu nekkee xalifa lim wax taalib yi mooy man sama aw sas bi nga xam ne mooy sas bu gën a am solo ci sama sas moo di eh, eggaleel Serigne Touba lii nga xam ne moom la bëggoon ci xam-xam loolu mooy li nga xam ne mooy sama sas eh, danaa def ci yeneen sas waaye woowu mooy sas bu njëkk wi mooy wéri wéri yonent bi nga xam ne moom moom lay jëkk loolu yi nag mooy lii tey dégg ngeen li wax nee na dafa fas yéene yëkkati ba mu dem ba ca kaw mu mel ni ab escalier boo xamante ne dana mel ni soroor ba àdduna sëpp teg seen bët ba kuy wuta ci xam ak foo ko wutee ci àdduna sa xel du nekk lu mooy fii ci Tuubaa ndax mboolem fànni xam-xam yi soxla yëpp dana fi am ci wàllu diine ci wàllu agriculture ci wàllu mbay ci wàllu économie ci wàllu métier ci wàllu lépp loo xam ne la mu waxoon ne wa kullu ilmin bi manafii yëf yi lépp loo bépp xam-xam boo xam ne am na njëriñ rek sëñ Tuubaa woote woon kon loolu mooy li mu bëgg a def mooy li nga xam ne tey itam moom la sëñ bëgg a def tey jii kon bis bu rëy ngi nii bis bu màgg ngi ni boo xam ne yëpp war nañu ko bàyyi xel bu baax a baax ndax li mu fiy def lislaam bépp la koy defal li mu fiy def jullit yëpp la koy defal képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah bis bi sa bis la yàgg na yéen a ko bokk comme ni ñëpp ñu ngi sant ñëpp asalaamaaleykum